Mouhamed Rassoul ñu lay nuyu di la dalal. maa jaar baax jaar. ajuma ji ngeen amal déclaration euh, di ci artu euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy waa SDE lan moo waral ñu dégg leen. waaw lu waral ñu dégg ñu dey mooy ban fi nekkee ñoom SDE suñu njaatige boobu dañu seqaloon ñoom benn fonds commun de placement. Mm-hmm. ñu ci doon cotiser ñun travailleurs yi ñuy dagg weer wu ne ñuy del suñu ay dividende yoo xamante ne suñu. participation ci capital bi daf ñu ko doon may au lieu que ñu séddee ko ñu ko doon def ci fond bi. Mhm. pour gën ko ñoŋal gën ko dooleel. loolu yëpp nag ba tey jii mu toll ci ñetti milliards ak genn wàll. Mhm. ba loolu amee nag ñoom nguur gi jëlee leen fi jox ni leen ñu bees ñuy ñuy ñuy say toog di toppatoo affaire ndox meeg di loolu di ko jox population meeg yooyu. Mhm. ba ñooñu ba ñu demee ñoom ñu ne nag léegi ñoom ñoo moom fond bi ñun travail yi nga xamante ne tey jii ñoo ëpp ci biir fond bi. Mm-hmm. ndax dafa mel ni benn tontine rek boo créé woon boo sosoon. Mm-hmm. am juróom fukki nit juróomi nit yi teggil leen ba pare ñu continuer mm-hmm. ne ñoom ñoo moom alal bu nga xamante ne neen fukki nit ak juróom yu des yi ñoom ñoo ko moom est-ce que loolu xel nangu na ko yaakaar naa ne xel nanguwu ko donc loolu moo tax tey ñu jug taxaw temm. pour laajte suñu àq suñu yelleef. Mhm. loolu rek la du leneen. kon bu ma la déggee ngay wax Rasoul dafa mel ni dafa am ay nit yu doon liggéey ci SDE ñi nga xam ne tey ñoom ngeen jàpp ni ñoo accaparé wu moomeelu askan wi euh, maanaam yéen ñi euh, waaye SDE ci la bokk wala bokk ci. SDE kay bu tudd SDE la ñuy waxal ñun. d'accord waaw ne ko mandargal mooy ña ko jiite ñooñu la ñuy waxal ñoom la ñuy waxal. fond bi nu mu demee euh, justement. fon bi xam nga fon commun de placement da ngay ni teg da ngay ni créer benn fon mhm. fonds bi dañuy cotiser ñun travailleurs di si def di jël suñu ay dividende mooy lu nga xamante ne résultat yi entreprise bi doon généré. Mhm. ñu amoon ci wàll. comme boo bokkoon benn mbir sos société at bu ne nga xool lan mooy bénéfice yi nga jël sa wàll. Mhm. ñun nag au lieu que jëloon sunu wàll dañ ne woon déedéet dañ ko defal ci fonds bi pour gën ko dooleel gën ko ñoŋal. ba nga xamante ne. dina gën a am solo daal. Mhm. di ñoom depuis 2011 nag leen créé woon fonds ba léegi képp ku nga xamante ne yaa ngi ciy cotiser. Mhm. bu retraite mooy mun tax wala nga faatu yàlla na yéex. Mhm. wala nga bàyyi entreprise bi. loolu mooy lu nu tegoon nga xamante ne mooy charte yi pour ku bëgg génn ci fonds bi lu ko mooy dañ teg ay daan. delloo la nga cotiser woon léegi nag. fonds bi dem na ba toll ci tey ñetti milliards ak genn wàll ñoom ñu bëgg continuer nag di bénéficier wu ci retombé wu fonds boobu parce que fonds bi maanaam xaalis bi. Mhm. da lay permettre nga dem jëndi ay action Sonatel bu neex nga dem jëndi ay emprunt obligataire bu neex nga dem investir am ay def ay placement ak yooyu noonu. Mhm. léegi nag muy muy muy jur la muy jur nag moom la ñu bëgg xañ bëgg ñu delloo rek ñu leen cotiser woon. waaw ndax ñoom dañ jàpp na ñoom ñoom moom fonds bi. Mhm. waaw ah. euh, tey jii ndax euh, li ni mel amuloon cadre juridique bi nga xam ne moom moo koy organiser moo koy tëgg. ah am na kay. Uh-huh. am na cadre juridique. kon ñoom ñoo ñoom ñoo voilà ñoom ñoo violé kii ndax lu ñu waroon teg ñoom bari na. waroon nañ di ñu jox bulletin di ñu xamal suñu kii fu mu toll ku nekk. Uh-huh. Traoré mu ne dafa amoon droit am bulletin di xam bu koy informer ci situation financière fu mu toll ci uh-huh. fond bi. cotisation fu mu toll investissement yi lan la ko jural yooyu yëpp fouraas joxuñu ba ñëwee ñu ne woon dañuy teg président dañuy créer benn conseil de surveillance buy surveiller fonds bi. Mm-hmm. ñeent lañuy joxe ñoom waa direction générale ñun travail ñu joxe ñeent. Mm-hmm. ñu fay teewal ñoom dañuy yore conseil de surveillance bi présidence bi pendant ñetti at. Mm-hmm. bu nu paree ñu ñu jël ñetti at waaye ban ko sosee ba léegi. mosuñu nangu ñu ñu jiite fonds bi. comme amoon na cadre juridique Rassoul lan moo tax namu leen dem ci yoon. au lieu que ngeen di jël euh, maanaam euh, plan d'action bi ngeen entreprendre. waaw xam nga loolu excluroon ko. ñun mouvement syndical la ñu yor syndicat lañuy ñuy def dañuy def lépp lu nga xamante ne syndicat may nañu ko yoon may na ko syndicat mu def ko. pour laaj àq ak yelleefu. travailleur waaye bu fa loolu rek desee yaakaar naa ne fa jëm. comme nag ci dëkk yoon lañ ne dañu bëggoon kenn duñu tuumaal naanu waxtaanu leen. Mm-hmm. diisoowu leen mënoo ngeen diisoo moo ngeen dem ci yoon ak yooyu moo tax ñu njëkkee jéego yooyu noonu waaye daanaka bu antuwulee nag. Mm-hmm. ba dootuñu xeebati dara dootuñu yéemati dara lu ne dinañ ko def te yaakaar na ñoom war nañu xam bu baax a baax ñoom ñoo fi nekkandoo ak ñun. Mm-hmm. nguur gi tamit xam nañu suñu capacité suñu dayoo. réew mi tamit xam nañu kon waruñu caaxaane waruñu fooyee daal. ndax waaw justement ci waxtaan googu ngeen doore ñoom la lañ leen wax. pour ngeen euh, teg seen loxo lu ñu merloo mooy dañ leen bind ba daaxal ci moo lay wax rek utum jàmm bëgg jàmm ak diisoo laaj leen ne leen ñun dañu bëggoon comme ñoo ko bokkoon delloo leen suñu yëf. Mhm. comme yéen daanaka retraité ngeen ñu ci ëpp ci yéen te ñun mille et personne leen lañu nu nangu. waaye fukki nii ak juróom di yor li suñu bokk moomeel boobu di ko nangu di ko di ko jëriñoo dinu ko xaj mhm. ban leen ko bindee nag bataaxal ñu xamal ne ko yéen moomu leen kii bi moomu leen fond bi ñoo ko créé woon kon ñoo ko moom. Mm-hmm. ndax comme ñoom dañu jàpp nii ñooy si ñoo leen teg coono gu nekkee waa Sen'Eau bu ñu jëlee ko Sen'Eau daf ciy gagné. Mm-hmm. or ñun travailleurs yi du affaire sax Sen'Eau ndax ñun travailleurs yi ñun ak ñoom la woon nguur ji décidé ne ñoom dañ fiy jugee indi fi ñeneen ñaatige yu bees. Mm-hmm. waaye la xam ne ñaatige yu seen yoon newul ci fond bi ndax bokkuñu ci. ñun travailleurs yi nag ñoo ko moom. d'accord voilà ñun loolu leen wax. d'accord léegi tey euh, gannaaw nag bañ leen euh, ngeen jàpp yéen ngeen jàpp ne minimiser la ñu tontu leen ci lettre bi yéen lan ngeen def pour wan leen ne yéen leen ci ëppale tey. Euh, mooy mille cent seize personnes mille cent seize personnes. Mhm. mooy junni ak téeméer ak fukk ak juróom-benn mhm. yaakaar naa mooy mille cent seize ñoo bokk ci fond bi ñoom fukk ak juróom lañu tey. fukk juróom leen le reste ñëpp mooy euh, junni ak téeméer yi travailleurs benn yëpp. Mm-hmm. seenoo leen ne ñu dinoo bind pétition bi quatre vingt pour cent ñu bokk ci fond bi am na nag ñu ko signé wul. Mm-hmm. waaye quatre vingt pour cent yi d' accord nañ ne ñun lu leen lu réclamé lu ñuy réclamé ci seen tur ñoom ñoo ko siife ñoo ko d' accord ñoom ñoo ñu ci dooleel. pour nu wan essayer ne ko nag comme da ngeen waxoon ne ñun waxaluñu ñëpp travailleurs yi benn seeni syndicat kese leen yor benn parti rek leen yor benn déclaration rek leen ñu def ak yooyu noonu moo tax ñu defoon pétition bi. Mhm. pétition bi nag def nañ ko am na ay yeneen i yu bëri bëri yoo xamante ne poñ yoo xamante ne dinañ ko def dinañ takk morso yu xonq. wane mhm. ko wane sunu mécontentement bu nu ko amul bu nu amulee lu nu bëgg bu nu amulee lu nu bëgg nag mhm. dinañ def sitting ci buntu SDE xam na nañu baax fu nu ne ñu ngi fii ci VDN bi den leen fa fekk def fa sitting manifester fa ba réew mi ñëpp xam na nii du ñu entreprise bu digne de confiance. Mm-hmm. du ñu entreprise bu élégante parce que liggéey nit pendant vingt trois ans jël alalam bu ko féetewoo. Mm-hmm. yaakaar naa ne benn amul benn dëkk bu yoon bu ñuy bàyyi ay nit. nu ñu ñuy def loolu ñu leen di bàyyi. tey mu mel ni ndorteel la ngir ngeen laaj ngeen laajte SDE lépp li nga xam ne yor na ko mu doon seen moomeel euh, sànq yéen a ngi wax retrait des travailleurs seen eau de la part euh, dans le capital voilà ñu bëggoon a xam yeneen ak yeneen yi nga xam ne tey yéen a ngi koy exiger. waaw xam nga ñoom ba nu demee. Mhm. pour te dire que ne duñu entreprise bu responsable ndax boo liggéey ak ni 23 ans dem amel travail dafa nekkoon seen ay yàq seen ay da ngay def ak ñoom solde de tout compte boo amelee ay nit seen ay congé nga liggéey loo leen ñu jël congé nga téye leen pour le bien de de du service nga téye leen foofu noonu liggéey loo leen kon mooy xam nga jurun pleinement de leur congé boo leen amelee alal yaakaar naa ne waroo daw man lay ñett pour nga fay leen ñu commencé fay ban lañ ñettee ñu commencé fay ñeneen ñi bàyyi ñeneen ñi ba léegi fayagu ñu am na ñun fayul ba léegi jël suñu fonk ba placement daw moom comme dañoo amoon nag ñun 5 pour cent ci capitalu SDE. ñu leen di ñaan lay war a suli comme sëy bi tas na nguur gi tas na ko. ngoyoo ngoy dem leen ñu dem delloo leen suñu suñu suñu juróomi pour cent. ngeen dem ak yéen fu ngeen xam waaw ñun bëggatuñu ànd ak yéen. d'accord euh, ndax li ni mel jot ngeen tamit def ay correspondance ngir état mën leen a ci mbir mi. yëpp waxoon nañ ko ci ban doon grève ci décembre bi. mais defu leen doxoon nañ ko ba moo waraloon suñu grève bi am pour am 8 pour cent ci seen o waaye pour ne tamit SDE bii balaa mu fiy jóge lépp la mu amalante na ko na ko def. Mm-hmm. xam nga nag nguur gi moom yaakaar naa ne léeg-léeg dañuy seetaan ay nit di noot neneen te yaakaar naa ne nag loolu ñun duñu ko nangu. waaw ñun duñu nangu loolu. waaw di fi nekk ay victime comme waa Sotrac ak wala ay ay siyaas ñun yooyu du nga ko nangu tey du nga ko nangu lëkk d'accord tey jii mu mel ni euh, euh, kii di SEN'EAU dafa hérité ay problème mu tey euh, SEN'EAU e. e, SDE voilà tey yéen ñi liggéeykat yi déjà transferment am na yéen a ngi tey ci beneen société bu changé ndax seen plan de revendication yéen a ngi koy maanaam ruumandaat wala ba tey yéen a ngi may dal kii di SEN'EAU le temps mu toog ngeen xool nan ngeen di liggéeyee déet ci ci may gu toogandiku boobu tamit ba léegi teewul avancement yi négocié nañ ko daaw ba ba ba décroché ci maanaam ay akki waaye xam nga ñun travail du ñu doyal jamais dañuy bëgg chaque fois rek lu yokk payoor gi lu ñuy jëmale kanam ci wàllu statut professionnel yooyu noonu. Mm-hmm. te wax bu bu wax dëgg yàlla nag bu dee attente rek la dajagunu. Mm. dajagunu daj dëpp gi daal. Mm-hmm. waaw des na. rasul ngeen soppi euh, entreprise donte benn benn entité euh, mën naa ne benn secteur bi la mais xam naa anam yi du doon benn ndax tey ci wàllum euh, la ngeen xamoon yéen a ngi ko gis ba tey wala seen environnement liggéey soppeeku na. waaw mu ngi nekk di soppeeku na ndax xam nga démarche yi bokkul ña fi nekkoon ak ñii bokkuñu ku nekk da nga indi sa façon sa tëralin sa doxalin. Mhm. bu bees waaye ñun travail de la façon ñu ngi ciy adapté wu. ndax comme ay professionnel leen yàgg nañ ci milieu bi milieu de gestion périurbaine de l'eau yooyu noonu xam nañ ko yàgg nañ ci secteur hydraulique bi donc changement lu mu mu metti metti ñun de la façon mun nañ ko dékku parce que ñoo fi nekkoon ñu ko liggéey pendant vingt trois ans mm-hmm. amul benn façon bu changé nu ñuy jaayee ndox amul benn façon ñuy recouvrer client yi amul benn façon nu ñuy facturer client yi donc loolu ci liggéey bi production bi bi couvement bi yooyu du changé. Mm-hmm. sànq xamal nga ñu ne doo technicien mais du tee dinañ la ko laajte rasul parce que tey soppite bi sénégalais yi ñoo ko dundoondoo doog yéen ñi liggéeykat yi tey moo am li nga xam ne soppeeku na tamit ci approvisionnement en eau bëri na plainte yi. Mm. quartier yu bëri amoon na sax ñu fi dox bu yàggul jàmmalaay dox si ba fii SDE ngir nag ñaxtu ne li nga xam ne mooy distribution de l'eau dafa am jafe-jafe bu gën a tax mu mel ni tey jii sd amoon na li nga xam ne réglé na ko ci mbir moom mais dafa mel ni seen o ba tey adapté ñu. waaw ñu ngi jéem de ñu ngi jéem. ngi jéem. waaw ñu ngi jéem ñu ngi jéem daal parce que loolu mooy suñu mission. Mm-hmm. mooy produire une quantité d'eau suffisante en en quantité en qualité. jox ko population yi ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñu tax toog te travailleur boo gis ci loolu lay xëy di ci gontu waaw. ñu ngi ciy def lu nu mën ouvrage yi nag ñu ngi loolu ñu ngi nekk di leen mettre en place xam nga KMS 3 mu ngi nii euh, tabax nañ ko réception euh, après réception bi ministre bi sax waxoon na ne mars 2021 la ko war a réceptionné après yaakaar naa ne bu ñëwee dina doon lu am am solo. Mm-hmm. ci dooleel ndox bi ba mu yegg gën a yegg ci population yi.